aujourd'hui euh, de tout ce qui nous regarde, euh, euh, de, l'international comme du national, on voit que c'est la vérité qui triomphe. Ce n'est pas la peine de mener des passions. On est un pays civilisé, on est un pays de droit, mais c'est dommage, aujourd'hui, je dis bien c'est dommage de voir qu'un pays comme le Sénégal est arrivé à ce point. Cela veut dire qu'aujourd'hui, on doit s'interroger, même jusque dans nos universités, ce qu'on enseigne, les valeurs, d'abord. Il y va, euh, je dis bien, de l'éducation également de tout un chacun. Parce que quand tu as une responsabilité, tu dois de temps en temps regarder derrière toi pour savoir qu'il y a un monde qui est derrière toi, qui t'a fait confiance et qui compte sur toi pour ne trancher que le droit et la justice. Et malheureusement, on a, on, a, on a perdu cette confiance et ce qui a valu justement euh, l'état que nous vivons aujourd'hui. À qui la responsabilité À qui la responsabilité C'est nous d'abord. Nous tous, on est responsables. Comme je disais, c'est l'éducation de tout un chacun aujourd'hui. Si on a fait valoir aujourd'hui, on faisait valoir justement euh, nos principes et nos droits, je pense qu'on n'en arriverait pas à ce point. C'est dommage, les gens sont passionnés, mais comme je dis, il n'y a que la vérité qui triomphe. Et comment vous, appréciez le mutisme du chef de l'État depuis euh, ces événements Cela ne tient qu'à lui. Il est le chef de l'État. Une carte l'a mené au pouvoir. Et c'est un peuple qui lui a lancé cette carte. Il doit savoir aussi regarder derrière pour savoir ce qui se passe et pour faire face à cela. Et c'est ça qu'on attend d'un chef d'État, de prendre toutes ses responsabilités. Indiquer la libération Ce n'est pas une faveur qu'ils ont. Il s'agit en fait respect de la volonté populaire. La libération d'Ousmane Sonko relevait d'une exigence du peuple sénégalais. Ils étaient obligés de le faire. Qu'il fait des crispations, peu importe. Qu'il l'a des, des, escalades, peu importe. L'important, c'est que cette mesure qui a été prise nous enseigne de, de deux à trois choses. La première chose, c'est que cette mesure, effectivement, conforte et établit la thèse de ce complot qui a été monté avec des procédés sordides qui ne sont pas dignes d'un État démocratique. La deuxième chose, c'est que l'État a compris que force reste la loi et la loi ce n'est autre chose que l'expression de la volonté populaire. Cette volonté populaire, effectivement, a fait reculer l'État. Et Maintenant, il ne s'agit pas seulement de libérer Ousmane Sonko. Il s'agit de libérer tous ces détenus politiques et qu'on arrête de divertir les gens, de parler de mercenaires, de parler de terrorisme. Il ne faut pas qu'ils créent d'autres conditions dont ils seraient les seuls responsables. Il faut que tous les détenus politiques soient libérés. Quand ko a injustice si moom on ko assemblée ba tax ñu fal ko ñu ko population Sénégal bi taxaw tey di jàmbaar ak moom tey jii nag nañu delloo njukkal xam ne ñun dañ ko jàppale woon mu falu ba nga xam ne jël na réew mi dañ ko dañ tegoon injustice si moom léegi injustice boobu mi ngi koy bëgg a teg ci ñeneen ñun nag loolu duñ ko seetaan dañ koy xeex pacifiquement duñu sànni duñu toj duñu yàqal kenn te bëgguñu yàqal kenn voilà que ça cesse tey yi dee nii yëpp boo xoolee ñàkk sëriñ si attu na ko woon ne ko bul moytul bàyyi bàyyi affaire mu sedd si suuf bu déggaloon sëriñ si kon du toll fii ñi ñi ñu si géej gi na suñu géej gi yëpp voilà géej gi yëpp jaay nañ ko nappkat yi amuñu fu ñuy dem gaa ngi dem barsak voilà loolu dafa tey Macky Sall nag xool population bi mi ngi souffrir mu dimbale ñu trois ko fi dese lenn naa ko laa koy bugg a xamal nag bu mu jéem a sax waxaat troisième mandat parce que bu ko fi indee dama ñëwaat loolu la ñuy bañ a dégg trois la ñuy bañ a mu jël ku ko remplacé mu jéem a dem élection gars yi ñu xool Sénégal ñu dundaat si jàmm ak salaam le lañ koy ñaan. je suis gendarme en retraite MDR chef je suis gradé de la gendarmerie MDR chef la retraité naa depuis maa ngi dëkk commune ko Yëmbël 241 E 241 li may wax ragaluma ko tey ragaluma ko ëllëg. et quelle quelle est votre situation bi Macky Sall daf ñu humilier ñun en tant qu'homme de loi pouvoir législatif euh, sukuraat pouvoir judiciaire sukuraat pouvoir exécutif sukuraat kon bok état dee na état amatul li tax mo wax lolou moy mi ngi police baye gendarmerie dou ay mbeur ñu dugg ci ay 4-4 di xeexal ñun depuis vendredi lu mat 8-4-4 à la Médina ñu yore ay ay euh euh milice on les appelle des milices ça c'est excessivement grave pour un pays ay mbër ku ci nekk yaa ngi toll ni Rambo dugg ci pick-up dugg ci pick lu mat huit nekk ci pick-up presque sept pick di sànnanteeg ñun ay xeer léeg-léeg su safee ñu génnee grenade te wóor na ma ne ñu ngi pistolet automatique ak magnum loolu lu ma wóor la lu ma wóor la su tàngee ba tàng vendredi laa leen di wax rek Medina li ma lay wax dama ko dund. su tàngee ba tàng ñu daw dem làqatu ci policiers yi barrage fixe fermé policiers yi dañu defar barrage fixe fermé xam nga loolu mooy maintien d'ordre c'est des professionnels mais par rapport ak c'est des professionnels. ak libération bi euh, libération. libération bi doyul. ci petit combat bi la. grand combat bi ñëwagul. damay grand combat bi. grand bi mooy guddi guddi palais. le président Macky Sall na nga xam ni moom daxul sénégalais il n'est pas il n'est pas le meilleur des sénégalais il n'est pas plus ah éveillé que ah nous ah cette, cette nouvelle génération là c'est une génération informée c'est une génération qui détient la bonne information Sonko nag xam nga la est ci nit ñi indiwul xeex indiwul xuloo te indi éveil des consciences te xanaa xamoo bis bu conscient yi yeewoo Quel yi yeewu révolte day am te révolte bu amee ça sera une révolte pacifique léegi nag lañ lu ñu bëgg mooy dañu bëgg suñu justice la ñu soxla ñu teewaat ko xam nga lu ñu bëgg ah la séparation des pouvoirs

a def respecter les sénégalais limu wara def mooy limu waxone en 2012 mom bu né trouble à l'ordre public bu né Ousmane Sonko dafa indi trouble à l'ordre public bu ne bu euh, Ousmane Sonko dafa def atteinte des trucs du genre mais mom limu def 2012 mo gën a doy waar moom dafa né na armée bi wacc na population bi wacc ñu dem déloger le président Ablaye Wade au palais lolu gën a je pense que loolu mooy appel à l'insurrection